bismillahi arrahmani irrahim an qaal jëlee nañ ci sayiduna abu hurayrata yàl na ko yàlla gërëm mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama suñu sang mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama wax na ne akfiru dikra haadimi laddaat al mawt bari leen tudd fàttaliku haadimi lazaat aji màbb bànneex yi kii dee ñëw na haazim ñëw na haadim ñëw na haazim hadis jàng ci tirmidi mi ngi ci nasaa'iyu ibnu xibaan ibnu xibaan wéral ko lu jotaay neex-neex suñ la tàggee soppe rekk mu nëx lu situation neex-neex soo fàttalikoo koo dee rek neexaay ga jeex mbaa mu wàññeeku ndem fàttaliku gi dëgg la ci yow waaye tamit lu jamono naqadi naqadi lu mbir tar-tar soo fàttalikoo dee rek mbir mu woyof ndax xam nga ne dangay dee ba ko fi moo tax ñu ne dee du dugg ci bànneex lu dul mu naxal ko waaye du dugg ci naqar lu dul mu woyofal ko du dugg ci yaatu yaatu lu dul ko waaye du dugg ci xat-xat lu dul mu yaatal ko fàttaliku dee mooy tax ñu waajal la ca gannaawam ni ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxee ci xadis joo xam ne sayduna abu yaala shaddaad ibnu aws radiallahu anhu moo ko jëlee ci yonentu bi salallahu alayhi wa sallam mu ne alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawti ki muus mooy ki xisaab bakkanam te jëfal la ca gannaaw dee wal aajisu man atbaa nafsahu hawaaha wa tamanna ala allahi ki lot dof mooy ki toppuloo bakkanam bànneexam ba pare di yaakaar ci yàlla ay mébét wa tamanna te muy mébét alallaay ci yàlla al amaani ay mébét yoo xam ne tekewut fenn ndax yaakaar sax day ànd ak jëf waaye mébét moom mooy koo xam ne maa ngi def la ko neex ba pare yaakaar wala bëgg la ñay def lañ war a def am mu am ko xadis jàng ci wax na ne xadis ju rafet la hada wa sallallahu ala sayidina wa alihi wa sahbihi amin